nuyu naa ñëpp fii laay tàmbali yéen ci seen revue de presse sa kaasu kafe nga guux bala ngay naan bay si ma wax leen li xew ci Réew mi Askan sunu gaal gi yëgle gi naan man déclaration politique générale bi nga xamante ni sa gàt sa dëggalees ci nemmeeku Sonko daal di fixé ak ultimatum député yi la ko dégal de yëgle gi naan man naan leen na leen ma xamal xamal leen man sax léegi nag mbir mi dama koy def nag xeeb naa fi nga xamante ni moom moo di ca assemblée publiquement laa koy def mbooloo mépp teew sénégalais yi teew ma amal ko waa benn bokk yaakaar taxaw dëggal seen bopp Abdou Mbow ma yor seen kàddu naan moom kay dinañ voté article boo xamante ni dina supprimer li nga xamante ni moom moo di dissoudre assemblée nationale ñoom li ñu bëgg mooy toog li nga xamante ni mooy seeni mandat ba mu jeex ñoom waa benn bokk ku ne xam na ni ñoo ba xaayaan ku dégg lañ teel a waxe mag dem na ndaañ sali faaw bàgg war mbaam fi toll nii tembe Ousmane Sonko nee amatu lu muy rékkale yoota ubbil yéenekaay bi tey ku repp ci xare loo ko jiin mu xeeb koy gën a rambax ni ko di jëm ca kanam Ousmane Sonko fi mu toll nii tembe de xeex bu metti la nekk comme ni mu ko nekkee woon ba muy nekk opposition yëglekaay naan maan ko ba mu kay menacé na ba teg nag ba pare nag daal di teg ci table ji li nga xamante ne moo di ay condition maa la wax lii réew mi quotidien yëglekaay naan maan Sonko lu mu bëgg ligne Maginot bi maa la wax lii moom Ousmane Sonko dafa tontu namañ gaa ñi nga xamante dañoo jàpp ni day daw li nga xamante ni moo di déclaration politique générale bi leen naan leen maa ko gën a xiif maa leen ko gën a yàkkamti maa leen gën a noppi te nag ci kanamu assemblée populaire dëgg lees koy defee assemblée boo xamante ne askan wi dañuy teew intellectuel yi teew député yi teew sénégalais yi teew ñu amal lu ni mel Sonko de war a na ne nekkul pouvoir koo xamante ni laa wax opposition lu mu wax mu noppi déedéet moom de tontante gu mat sëkk la ko nekkee namañante gu saf sàpp laa la Dakar mbaama <laughs> ñam-ñam jeexal ko kay déclaration politique générale gi mujj na am bés de grand parent yëgle kaay naan man moom kay déclaration politique générale assemblée populaire dëgg lees nar a nemmeeku ci réew mi askanu sunu gaal gi maa la wax lii Babacar Ba yëkkati ay kàddu naan inacceptable dans un état de droit mënuñu koo nangu te fi mën a amee moom day jàpp na ni lu ni mel bu ko Sonko defee rek jalgati na li nga xamante ni moo di yoon a xew Ousmane Sonko mayewul dara xam nga osé e dëgg la def nag taxawalal boppam dëggal boppam ba pare fixé ay conditions am xanaa du mooy PM informateur quotidien yëglekaay naan man deuxième crise institutionnelle ci ñetti weer en trois mois yëglekaay gi naan man bu nu ko defee dëgg defunul lu nga xamante ne mooy li loi bi tëral député majorité bi ni moom taxaw nañ ne dëggal neen seen bopp ñoom ñi nga xamante ne ñoo fa ëpp di waa Benno Bokk Yaakaar dinañ li jënd fexe ba duñu dissoudre assemblée ana jomaay dans tout ça moo fu jomaay féete président de la république Sénégal Sonko mooy jomaay ci réew mi xanaa xamoo ko lii quotidien yëgle kaay naan maan et président jomaay dans tout ça moo ndax dina rappeler son premier ministre à l'ordre dina ko tegaat ci axe ni ko waaw sama waa yoon wi nii la di moom Sonko daal mi ngoog lépp lu muy def daal da ciy bëgg di boole askan wi ndax li ko askan wi jox pouvoir gee tax saa su nekk muy bëgg di ma gën a gore ci réew mi lee waaye daal yëgle kaay baa ngi naan maan bu ko defee rek xamante ni mooy li loi di tere ci lu jëm ci wàllum déclaration politique générale député yaa ko war a teewee waaye du askan mbaay partenaire bés bi le jour yëgle kaay naan man Sonko refuse de faire sa déclaration politique di menacer naan dama koy def hors assemblée waa Benno Bokk Yaakaar taxaw di teg réforme goo xamante ni day tax du nu mën a dissoudre li nga xamante ni moo di assemblée gi lée ak aw motion de censure contre le PM tribune yëgle kaay naan man ma jàmbal jaan yëkkati na ay kàddu naan coup d'état woo pëpp pëpp pëpp koy dénoncer de tribune naan ma xanaa xamoon ni Sonko xaa <laughs> eh waaye ndaw sàmm déclaration bi fa ko bëgg a amale moo di sa marche Sandaga bàyyi assemblée bu nu sukkandikoo ci Thierno Alassane Sall ma nga naan un règlement intérieur hors la loi taasa ko xamle ma nga naan inacceptable dans un état de droit kenn du ko nangu Babacar Ba Forum du justiciable la la waa bennoo di tere empêché ki nga xamante ni moo di kaay naan maan xam nga crise institutionnelle dëgg lees nar a nemmeeku yéem te jaaxal ma mooy Sandaga gim ko bëgg a amalee bàyyi fi assemblée ñu wëlbati ko xaatar bi ko dal ci l'observateur yi la mu naan ma kaay ma wax la nag ay man moniteur yi lée moniteur yi sportif yi lée moniteur yi kay dañoo doy waar nañ dem ca yëmbal komiko waaye ci jëm boppam am moniteur la maanaam day jàngale di woon ana naka la ñuy sporé ba am ay forme naka la ñuy dindee graisse ak yu ni mel yëgle kaay gi naan man moom ci jëmi boppam daa séquestré maanaam fexe ba jël aw jigéen denc ko ca këram ndaw sa aw femme mariée la am na jëkkër de am na jëkkër de seetal nekk ak moom rek di nekk ëmbal moniteur bii ëmbal laa la wax de ëmb ba dem na ba am juróom ñaari weer ay yow seetal ma lii yéeme na ma ne ko doy na waar ëpp nab tool suba ak jàmm ak salaam waar wi nga xamante ni moom la Gris Bordeaux ak Ama Baldé war a bay ku ci nekk ci ñoom ñaar mbir ma ëpp na lab tool ndax muy Gris Bordeaux ndama ko arrangé Ama Baldé ndamay tax mu génn ci kàmb gi combat a combat am jaar déem la képp ku ca juum boo wattul ni dërmal nim gëpp ci suuf un derby la Pikine Fass la record ruur gi ku jum jum jum ñu jàggi la ruur ci suuf de réew mi quotidien yi sport plus yëgle naan maan ay compte yu ñuy régler dëgg lees nemmeeku ci combat bi lée li la mën a xamal mooy ku ci daanu dugg ci saako bi guy gi aada faas niki suba laay tem moo ndax xam ngeen jos dina ca laale ak ki nga xamante ni moo di liis njaago ay combat yu nar a neex gàkku deux ak bu laal waaye girek ama boo wattuut mu mel ni tulleeg manle kur fañee ni mbàccum gerte ndax dañoo ñimente guy gi aada faas itam guy gi bokkal aada faas itam indi na lool guy gi bu diimee tendee fal tuuti mu dugg ci tànk yi musiba dal guy gi naan ko tànk yi da nga koo gis nii deeni tànk yu bon la wala dara duggal boo duggee di nga xam ni lépp dëgg la te dëgg-dëgg yi le combat ay combat yi njaar ndéem lañu sëy laatir bu baaxee rek ba sama clavier ñu dem ba suba jàmm ak salaam a ngi doon déglu seen revue de ak Fall Damel revue de ko xamle kafe balaa neex saf sap ak jar fur for tàng jër yi ñu jox leen dig daje jërë ngeen jëf ba suba ak ngeen jëf gars yi naa ci yéen bég naa ci yéen ñi nga xamante ni yéen a ngi may teewlu rek di teewlu revue de presse bi dooley jëndoor la ah, ñun suñu doole yéen la yéen ñi nga xamante ni yéen a ngi ñuy teewlu également di ñu teewlu un peu partout au Sénégal waaw Xaadim ah, Gueye borom ndeysaan borom borom Touba sama xarit bi ah sama xarit bi Xaadim Gueye sama nit nga waaye Gueye Njoora Gueye Njoora maa ngi lay bëggee Xaadim yow sama waay nga maa ngi lay nuyu di la laaj ci loo ne nag sa jàmm ak sa jàmm yaram Xaadim Gueye sama xarit bi maa am nga tawféex yow képp lay biggi de mbaa xam nga loolu waaw revue de presse tey bi yow laa ko jox nag waaw moom day partagé oh ndeysaan day partagé revue de presse bi ma ne leen màggaluk daaw yóbbu na ma ba këram présenté ma koñam yépp Guèye sama xarit noo def jërëjëf waa groupe yépp nag groupe yi nga bokk yépp bo la mu bokk ci ay groupe kenn xamul nu mu toll laa la wax groupe yépp laa xaadi xaadim waaw revue de presse mention spéciale à yow sëriñ Abdou Salam Sarr yaa it yaa ngi ci biir kenn du yow ci réew mi maa ngi lay nuyu ba am nga tawféex pulloo ay pour pulloo sama xarit ba am nga jàmm ak salaam ma njaay dem maa ngi laa nuyu ma lépp tawféex ayca di nuyu képp koo xamante ni yaa ngi nuy bàyyi xel waa nga waa ba tay bay ci marché bi sama xarit yi maa ngi leen di nuyu mbokk yi bégg naa ñëpp bàyyiwuma kenn maa la wax li ah déclaration politique général publiquement nag Sonko nee na moom nag léegi sax nag dafay nekkul di wut lu muy nëbb ka làq nag da dafay amut nee na nag yëf yi nag publiquement la koy def nag ay Sonko Sandaga ah Thierno Alassane Sall nee na moom da ci Sandaga la ko bëgg a defee mi ngoogu daal en tout cas nuyu nañ ñëpp nuyu nañ ñëpp jox ñëpp seen wàcc waay di kontaan ci ñi ñi commenté tamit waaw maa ko diggee maa ne képp ko commentaire foo mën a nekk dinaa tudd saw tur jaajëfal la sama yaay Ami Jabaay sama yaay xujja borom États-Unis d'Amérique moom nga xamante ni saa su nekk day teewlu revue de presse bi soog a dallu ah yaay booy yaay booy kontaane naa la ma ne ko yaay booy kontaane naa la ah, kontaane naa de yaay booy waaw ah, kontaan ci képp ku nuy bàyyi xel nag képp ku nuy bàyyi xel nag ci réew mi ah foo mën a nekk nag ci réew mi ak fu mu mën di doon moo xam nga nekk ci biir mbaa biti biti réew bëgg naa la kontaane naa la ah, waaw waaw waaw waaye kontaan naa ci ñëpp billaay wallaay asim ma ko billaay wallaay asim ñëpp laa kontaane bàyyiwuma kenn nag te bu kenn ni faal dammel béggaw ma wallaay wallaay asim wallaay asim ah on est fier koy nuyu ah de faal dammel la wax Ami Jabaay maa ngi koy nuyu Kéba Dia ah Abdou Kane Issa Dangoura Mamadou Diouf di bëggee Mamadou Sow Ousmane sàmb maa ngi koy bëggee Sambas Balde Mamadou Lamine Seck maa ngi bëggee Tafa Boy di bëggee Mame Marie Faye di bëggee Déthié Lo maa ngi bëggee Saliou Sylla Papa Diop maa ngi bëggee Dame Kunta maa ngi bëggee euh, sama xarit bii nee na ma borom info du jour nee na ma bu baax bi fii la ndeysaan info du jour bëggee naa leen Cheikh Omar Diop maa ngi koy nuyu Babacar Diop ba Babacar Badiane Babacar ma naan Diop maa ngi lay nuyu maa ngi lay bëggee. waaw ndeysaan non man yéen samay waay ngeen lu ma soj soj damay liggéey lu ma wopp wopp dinaa jàkkaarloog yéen ndax ngeen kontaan Cheikh Wade maa ngi koy nuyu mbaa am nga jàmm ah Cheikh Wade wax nga loo gëj a dégg beej beej kat xam nga ko nag beej moom mooy jabar jabari sa xarit mbaa sa jabar jabari mag di dàqeek moom di beej ak moom di dàqe di tey daal beej a ngoog ah Omar Talla Ndiaye moo Talla Ndiaye maa ngi lay nuyu bu baax a baax Ndiaye jaata Ndiaye Ndiaye Njaay Jaata Njaay Maodo Kan maa ngi lay bëggee bu baax a baax Modou Laay bi 1 ak 2 bu bëggee gi maa ngi lay bëggee maa ngi koy jox wàcc waayam Kumba Diop noo def Michel Tine maa ngi lay bëggee bu baax a baax Mamadou Lamine Njaay Cheikh Wade sama xarit ah ndeysaan euh, ma bëggee nañu sant rek sant rek waajal Ndar Saint-Louis maa la wax lii de Cheikh ñas maa lépp taw féex ab sa géy waaw waaw màggal gi ah, ah ma bëggee ma daal sas ba ñafali maa la wax lii Omar Diallo maa ngi koy bëggee Sam Seck di bëggee jëwrin ma Omar Thioune kii ne nee na ma numéro un de la revue de presse Mor Seck ko xamle Saliou Sylla merci beaucoup sama xarit yow amal jàmm eh, di bég ci képp ku ñuy bàyyi xel ca Gosaas ca Pirum yi sa Ceeju maatam ba ci Kicoor fu waaye nekk ni ñu teewlu bëgg nañ la jox la sa wàcc waay mbokk yi ñu jox leen dig daje kon ba suba ak jàmm ak salaam yàlla na ko yàlla def ci réew mi jërë ngeen jëf yendalug jàmm